Euh, lu jiitu ba jiitu maa ngi sant yàlla di nuyoo di gërëm dégg naa bi ba États-Unis ba Gabon partout maa ngi jot ay ay woote yuy wax ni lan laa wax bi ma koy wax maa ngi ànd ak sum conscience normale maa ngi ànd ak mbégte maa ngi ànd ak yëg-yëg jàmbatu ma keroog dara du ci sum walla xel du sum walla xalaatin euh, boo gisee nettali bu jaafee rek dangay ngay Euh, yàlla def na euh, fekkee naa bi sengoor di wut nguuru Sénégal cinquante huit moog Lamine ñu ñoo de dem fale wàcce ñu ñëw suñu dëkk ñu jox leen ay ay génn teg ci ay ay sajaat ak ay drap ñu toog ci moom nguuru na vingt ans lu gën a gàtt mu génn fi mu jox Abdou vingt ans Abdou Soog fi jóge ñu jox Ablaye Wade douze ans mu nekk cinquante deux ans ma fekkee ko sant yàlla daara ci li même su am du ñàkk lu rëcc sax mais lu ci bari maa ngi ci am ay xàmme léegi ni sa carte bi yow rek ak sa yàlla ak ci biir urne bi nga seet juróomi candidat yi nga seet bilan bi mu def wala limu mu la dig dina ko def mu ñor la nga dem sànni foo carte man nag ma ni Macky li mu def maa ni soo soosaat maa ni su dul woon ñaari mandat la ñu wax dem ko naan naam am manda ëpp lu ma xaabaabu lu mu ndax liggéeyam laa seet li fu liggéey ci juróom-ñaari bu fi nekkoon fukki at ci kanam dina Sénégal dino ëpp xool leen jàmm ñaaju lu fa nekk <clears throat> aéroport ku jiitoon moo ko soson waaye kan moo ko àggali Ila Touba koo ko àggali ah arène arène bu fa nekk foofu ku ko defar mbir yi fi ñu bëre fii ci kii ku ko defar kan moo jax maire yi kër yi ñetti weer yu nekk ñu xay dugg ci kër gi joxe juróomi junni pour famille bi ku ko def kan moo ko def ñaar tracteur ñoo dugg réew mi pour bay bilan Macky ma nii sum baat kaw laa am naa droit te képp ku ni sa carte da ko yore doo woote ñàkk xam moo tax amul imam amul bilal di carte bi mooy defar réew mi mu koy defaree mooy fal mooy folli boo falee ku bon am nga responsabilité yaa moom su nga yàq réew soo falee kuy defar am nga responsabilité yow ak kii koy defar seet naa ci juróom-ñaari at yi comparé naa ko ak juróom fukki at ak ñaar ci ginnaaw ma fekk juróom-ñaari at li sum xel dal ma ni gis nga fi aéroport bi nekk jëm um, foofu fekk ay at tuur ci kanam mooy doon cité bu gën a rafet ci biir Sénégal cité bi gën a jekk bi gën a rafet suñ bàyyee Macky mu continuer liggéeyam moo tax ma nañ ko jox juróomi at yi nañ seetaat suñ bopp nañ ragal yàlla lii <coughs> nekkul politique nekkul yëfi caaxaan responsabilité la wareef la ci jullit bi nga xam lan mooy doxal réew mi nga ànd ci waxuma nag yéen ñëpp waatal leen Macky mais dema ni ku gis li ma gis àndal ak man ñu jox Macky réew mi juróom-ñaari at mu nga nuy feeñ na bu ñu jotaate yeneen juróom juróom yeneen mu nekk fukki at ñaar ñu mu jox ñu bilan douze ans yi ñu comparé ko ak douze ans yi ci des comparé ko ak quarante ans yi weesu ci ginnaaw ah, bu fekkee partam liggéey na lu jar ci biir douze ans yi lopp douze ans yi lopp quarante yi ñu falaat parti bi rek te am naa ci yaakaar maa ngi nuyu Awa Niang mi ngi nekk ak ñun fii ci Dalifort di toppatoo moo indi woon fi première campagne bi ñuy wut réew mi fii la ko defee ci jàkk barak mu defaat ko fi première salaire mu sedd la ko fi jàkk barak euh, fa lillahi alhamdu bi yoon encore mu ñëwaat te xanaa ku ñëwul mais suy wootee 19 mosquées yi nekk ci commune d'arrondissement bi ñoom lay woow xaalis milliards yi nag bi ñu jaaruñ ci loxom jaaruñ ci président euh, bi yore euh, Euh, imaam yi ñoom seen bopp fondation bi rek moo ñëw euh, contacter directement jàkka yëpp ñu tànn suñ jàkk yi tànn suñ bos bi ak beneen fàtte naa tur boobu ci boori cité eaux et forêts ci ginnaaw foofu xam hilaal xam mu ngi fa bu nga laajte di ngeen xam ban jumaa kon maa ngi rafetlu man li ma waxoon le ku gis ne daa ñaaw man dama gën a kontaan sax niñ niñ ma critiqué dama gën a xam ni man li mu wax dégg la bu dul woon dégg duñ ko critique denu a ah, lii eh, banaal la kenn du ko jarul ñu koy waxaat mais lu tax mu jógee ba Gabon ba Arabie Saoudite ba fu ne partout partout ñu may woo naan ma danga nga ëppal nii nga ko waroon waxee ma ne waaw est-ce que li mu wax du dégg dama bëggoon ngeen wax li nga wax amu ci benn luy dégg képp koo yaakaar lii moy dégg nga mooy ci même bu dul dégg yàlla bindal la benn yool en tant que da ngaa góomoon ni lii mooy dégg soo fekkee góom nga lii nga doxee ko mu tombeewaat loolu antu da ngay am ñaari yool kon nag man pertuma li ma waxoon bu ngeen fi ñëwee junni yoon mille et un nuit bu ngeen fi ñëwee li ma leen wax ni loolu laay répété ndax tàttune wu ma euh, lu ma dund la lu ma xam la bu koy wax damay teg yu bari sax teg foofu am na yeneen yoo boo ko wax day indi ay fitna mais li gën a lii daal laa leen doon wax di nuyoo ki jiite rajo bi di nuyoo Awa Niang di nuyoo mboolem ku yëngatu ci parti Macky APR la mille et un et un sur cent dégg nga maa rajo bi bu baax di télé bi di kontaan yéen ñi techniciens yi di leen ñaanal jàmm